va bébé? Snacka om. yaa ko. waaw looy def nii. damay connecté wu rek. connecté wu rek ay am ci whatsapp bi di wax ak xale yi jigéen ñi. yàlla tere bi ma ko gën a. waaw am di wax ak keneen. ci noonu nag. maa ngi nii rek. ah waaw. man de tey damaa suul sama yaram bi yëpp ay métti. naa damaa sonn nga coono voyage bi yooyu mooy loolu yaa ma gën a xam. waaw mais noonu la. noonu la xam nga yow jigéen du mën góor la. te ku dóor di saaga moo mën ñëpp yow yow kenn nga benn façon jigéen la démb dafa am ñu may waxtaan ak ñu naan ma mérité woo Fanta ma ne ko mais Fanta jigéen la. <laughs> comme ñu ne jigéen ñi pourquoi pas ni day gëm boppam. dama ko gis gis li ma bëgg ci moom wax ko ko mu d'accordal ma ko. ñooñu de dañoo baax di wax rek bu leen sax faale bu leen bàyyi xel. maa dara mooy loolu tey daal dama am envie ñu génn dem resto wala nit ñi mooy loolu yaa ma gën a xam defi chutte yi tey kii wut yooyu loo ci xalaat. resto resto. baax na dégg naa ko mais man nag xam nga man. pour ma dugg yenn réseaux Sénégal yi day xaw a mhm. parce que man sama yaay ancien toggukat. waaw sama yaay toggukat bu mag la woon te man dama mën a togg. léegi est-ce que xam nga premier sama yaay moo togg premier mbaxal gerte bu ñu njëkk a lekk affaire bi. boobu tuddul woon mbaxal gerte. mbaxal gerte bu tooy la tuddoon est-ce que xam nga mboroxe boo sama yaay di créé woykat yi naan mboroxe mboroxe. bon boobu tuddul woon mbooxe. Nadima. Nadima. waaw benn palaa la boo xam ne mboroxe la Sénégal xam nga loo indi il faut ñu utal ko tur ñu ko tuddee mboroxe waaw léegi nag amul problème léegi ngoon ñu dem ah. ñu dem bu ñu demee reer defal ba baax. dugg ci ville bi comme juróomi at dugg ndaw. waaw gëj juróomi at ah. léegi bu ñu reeree def loolu yëpp ma won la dëkk bi nga vérifier xoolaale dëkk bi. Mhm. xool lan moo fi yokk ak lu fi wàññi. wallaahi ah? mhm. entre bu ñu jógee ci loolu am na loo xam ne buggoon naa ñu waxtaan. loolaan la. waaw lu ma gënoon bëgg ñu waxtaan mooy xam nga Thiès population Thiès dañ ma seet dañ ma seet see boobu ñu ngi waaj a def élection maire yi. Mhm. ne ma ñun jeunesse bi dañ la seet si nga doy ñu ñu bëgg la dénk Thiès. Ah. waaw pour comme comme pour comme maire benn mën a jarul ngay campagne toogal. waaw bébé lu tax waxoon ma ko. la woon sonal ngay sonn xam ak affaire yooyu. ma la amul problème. ma ne leen amul benn problème instant bi aw ma parce que maire soxlaw ma ko lu ma soxla muy président de la république du Sénégal. loolu moo tax ma créé parti bu mag boobu. loolu dañ ko waxati. loolu mooy loolu mooy géej gi am na ndox. waaye yow imagine nga loolu tey nga doonoon président te jeunesse bi xam nga dañuy soxla benn jeune. est-ce que xam nga su ma nekkoon président lu may njëkk créer. Hmm. waaw avant damay njëkk créer mbedd yi booy di pédika ay robinet caakiri. ñu wax nii. non dootu robinet ndox. Oh, dinaa créer robinet caakiri. Eh. waaw dinaa créer idée la damay xool gàttaan yi ku si un mètre cinquante ma xool nuñ lay rende parce que il faut ñooñu il faut ñu jóge fii parce que dañuy amerde ay tugu ndaamay ñooñu xam bu ñu jógee foofu léegi ma loolu loolu amul benn problème loolu hmm. léegi bu boobaa maa ngi imaginer Thiès fii maa ngi fi imaginer géej wax nga dëgg yow fii xam nga amul géej xam nga Thiès amul géej ñu maa ngi fi imaginer géej te géej gi dèjà maa ngi koy def ak piscine boo xam ne entre kii bi asamaan si suuf si lay nekk. waaw piscine boobu maa ngi non non boobu du baax boobu du baax. dama fi créé loolu. fii soo fi créé géej géej bi da ngay jël ay ménébar da ngay jël jeunesse pièce yi boo yi nga xam ne liggéey xam nga commandé usine xorom di dugg géej gi. bu yàggee géej gi dina saf xorom. mais piscine bi nag. ah piscine bi nag. waaw non piscine piscine bi sama idée piscine bi sama idée bi sama idée. Hmm, loolu de boo ko defoon moom dëkk bi àllaa daw. ah dina neex. ah, ah ok léegi man léegi man naa ci yow kontaan naa ci yow pour. Pout mu jéem a modifier tur parce que Pout c'est honte mu jéem ko tuddee Paout. Pout. waaw damay changé ko Paout loolu loolu tamit. mu ngi ci ci sama xel quoi xam nga Pout si Thiès la bokk ah léegi dama changé tur bi tuddee ko Paut ëllëg ko Pout mais. Paut moo gën dëgg Paut tam gën a kii daaw waaw parce que Paut Paut neex na même Thiès sax waaw Thiès maa ngi xoola Thiès su ma demoon changé tur Thiès ko war tuddee ma xalaat ma xalaat mun naa ko tuddee Ngungi Njankaar. ñu ngi ciy ñàkk tur boobu. Eh, dem neexul ah. Eh, neexul changé beneen. changé ma ko soit ma jël sama turu jabar tuddee ko ko Fanta. Fanta ah, sa tur. nit ñi est-ce que duñu ji. par la force. dañoo me dañoo président de la république du nga dëgg lan laay imaginer tey. tey nga doonoon président nag. ma doon Marième ne doo gis sa wet sañ sa jaagar jaagar yi wala léegi nan nga nar a dugg seen ak ak discours bi nga war a def ak sénégalais yi. mon cher compatriote sénégalais sénégalaise encore je suis content avec les peuples du sénégalais les peuples du sénégalais xam nga sénégalais ak sénégalais bokul bu dee ji nga wax sénégalais bu dee jigéen wax sénégalais. Ah, sénégalais. waaw je je vous télécontent à retenir le peuple, à retenir les vieux, à retenir les arts, à retenir les voyous, à retenir des agresseurs, de retenir des... Ah, des... des... yow defal nii yow fan nga demoon. mais yow puusal ma tëdd la la. puusu ma. mais yow lu mu xew. yow xamoo lu xew yow.